yoonu mucc gi yàlla tëral saa yu ngeen déggee joololi bi taxaw leen xalaat te jéem tontu ci laaj bi gannaaw loolu mën ngeen wéy ci seen déglu ñetteelu njàngale mi yàlla moo sàkk àddina nanu bamtu nettali bi weesu benn ndax mën ngeen lim juróom-ñaari melokaani yàlla ñaar ndax yàlla am na ndorte déedéet yàlla amul ndorte te amul ab ñett malaaka yi fan lañu jóge sàkk yàlla moo leen sàkk ñeent ban bàkkaar la iblis def dafa tàmbali woon di yëg boppam ba bëgg a mel ni yàlla juróom lan moo dal iblis gannaaw bi mu bàkkaaree dañ ko génnee ci nguuru yàlla juróom benn naka lañuy woowe iblis léegi tur boobu lan la tekki seytaane te mu ngi tekki workat juróom ñaar ñan ñooy rab yu bon yi ay malaaka yu bàkkaar lañu juróom ñett yàlla ak seytaane ku sut lu tax yàlla ndaxte moo sàkk lépp yàlla sopp nañu te bëgg na nu xam ni mu sàkke àddina nettali bi mu ngi nekk ci téere bu njëkk bi ci tawret bi yonent yàlla musa bind téere bi ñu ngi koy wax téere njalgen bi bind nañ ci téere njalben gi ne yàlla moo sàkk lépp bind nañu ci itam ne yàlla jëfandikoowul lu dul kàddoom ngir sàkk lépp kàddug yàlla am na doole soo bëggoon tabax genn kër ndax mën nga wax bëgg naa fi genn kër rekk kër ga daldi sotti déedéet yàlla mën na ko def lépp lu yàlla wax dina am ndaxte yàlla mooy boroom doole mbind mu sell mi nee na ci njëlbeen gi saar benn aaya benn ba juróom aaya fukk ak juróom benn aaya ñaar fukk aaya ñaar fukk ak ñeent aaya ñaar fukk ak juróom benn ak aaya ñaar fukk ak juróom ñaar ca njëlbéen ga yàlla sàkk na asamaan ak suuf suuf nag dane muluñ ne wëyëng lëndëm gi muur dëndu ndox yi te xelum yàlla yiir ndox mi mel ni picc muy daayaarlu noonu yàlla ne na leer gi nekk leer gi daldi am yàlla gis ne leer gi lu baax la mu xajale leer gi ak lëndëm gi yàlla tuddee leer gi bëccëg lëndëm gi guddi ngoon jot suba dugg muy bés ba jëkk yàlla bind ñaari leer yu mag gi gën a mag yilif bëccëg gi gën a ndaw yilif guddi ak biddéew it yàlla ne na ndox yi fees ak ay ndiiraani mbindeef te na ay picc tiim suuf si naaw ci biir jaww ji yàlla ne na suuf meññ ay mbindeef mu ci nekk ak wirgoom jur luy raam wala rabi àll yi lu ci nekk ak wirgoom mu daldi nekk noona yàlla ne nañu bind ci sunu melokaan ak ci sunu misaal mu yirif jëni géej gi ak picc asamaan mboolem jur gi suuf sépp ak lépp lu ci raam noonu yàlla sàkk nit ci melokaanam ci melokaanu yàlla la ko sàkk mu sàkk leen góor ak jigéen mbind mu sell mi nee na njalbeen gi saar ñaar aaya benn ba ñett noonu asamaan yi ak suuf si ak li ñu ëmb lépp mat te juróom-ñaareelu bés ba fekk na yàlla matal jëfam mu noppalu ca juróom-ñaareelu bés ba ci lépp li mu jëf noonu yàlla barkeel juróom-ñaaru bés ba def ko bés bu sell ndax li mu ci noppalu jëfam ji mu sàkkee lépp bu leen fàtte ràññee melokaani yàlla yi ci nettali bi yàlla moo sàkk àddina bind nañu ci téere njalbeen gi ci tawret bi naka la yàlla sàkkee lépp te njalbeen ga yàlla sàkk na asamaan ak suuf suuf si amul woon melokaan ndox rekk amoon suuf si dafa lëndëmoon xelum yàlla moo yiir ndox mi yàlla ne na leer am leer daldi am yàlla xajale lëndëm gi ak leer gi yàlla tudde leer gi bëccëg lëndëm gi guddi yàlla xàjjale ndox mi def ndox ci kaw ak ci suuf gannaaw loolu yàlla sàkk lépp luy sax lépp li yàlla sàkkoon dafa motoon bi loolu weesoo yàlla sàkk jant bi ak weer wi ak biddéew yi noonu yàlla sàkk jën yi ak lépp liy dund ci ndox yàlla sàkk itam picc yi ak lépp luy naaw noonu yàlla sàkk mala yiy dox ak yiy wattutu ak yeneen yépp lépp li yàlla sàkkoon dafa motoon amul woon sikk noonu yàlla ne dinañu sàkk nit mu mel ni nun noonu yàlla sàkk nit ci melokaanam ci melokaanu yàlla la ko sàkk mu sàkk leen góor ak jigéen njalbén gi saar benn aaya ñaar yàlla wax leen ñu yilif jën yi ak picc yi ak mala yépp yàlla wax leen mën nañu lekk gàncax yépp ak meññeef yépp yàlla wax itam ñu am ay doom te tasaaroo ci àddina yilif ko lépp li yàlla sàkkoon dafa matoon amul woon sikk yàlla sàkk na lépp ci juróom benn fan te juróom ñaareelu fan wa yàlla noppalu ndaxte noppi na lépp li mu bëggoon a sàkk noonu yàlla barkeel juróom ñaareelu bés ba woowe ko bés bu sell fii la nettali yem am na ay laaj benn kan moo sàkk àddina ak lépp li ci nekk yàlla ñaar ca njëlbéen ga lan moo yiiroon ndox mi xelum yàlla yiroon ndox mi ñett naka la yàlla sàkkee lépp ci kàddoom ñent lan la yàlla wax ci mbirum lépp li mu sàkk wax na ne dañu baax juróom lan la yàlla naroon ci bi mu waxee dinañu sàkk nit mu mel ni nun ni yàlla nekkee am xel noonu la bëggee nu am xel ngir xam ko am cofeel tey def li mu wax juróom lan la yàlla wax nit ñi ñu def ko wax na leen ñu am ay doom te tasaaroo ci àddina yilif ko juróom ñaar su dee yàlla moo sàkk lépp kan moo moom lépp yàlla juróom ñett kan moomoom nit ki yàlla juróom ñeent lu tax yàlla woowee juróom ñaareelu bés ba bés bu sell ndaxte sàkk na lépp ci juróom benn fan ca juróom-ñaareelu fan wa yàlla noppalu na yàlla barkeel na bés boobu te woowee ko bës bu sell yan melukaani yàlla lañu gis ci nettali bi ak naka lañu wone melukaani yàlla yi ci nettali bi yàlla mooy boroom doole yàlla moo sàkk lépp te ci neen la ko sàkke yàlla dafa wax rekk lépp sàkku yàlla dafa jub lépp li yàlla sàkk amul woon benn sikk yàlla sàkkoon na nit mu mel ni moom amul woon benn bàkkaar gépp mbaax mu ngi jóge ci yàlla yàlla may na nit gàncax yépp ngir ñu lekk yàlla may na nit mu yilif lépp li mu sàkk beneen yoon dinañ waxtaan ci mbirum Adama ak Awa